nañu waxtaane ko mooy euh, dama déglu slogan yu bëri yoo xam ni ci yow laa koy dégg euh, muy jéngu dama koy dégg fippu dama koy dégg euh, te slogan yooyu dafa nekk ay slogan yu yu yu yu ànd ak fitna lan moo ko indi lan moo indi slogan yooyu pour yow lan moo ko waral slogan yi àndul ak fitna slogan yi dafa dëppoo ak jamono bi mhm. jamono bu métti boo xam ne nit ñi dañu xoox nit ku xoox day soxla eh, xekk yi xaw ma koy waxee ci wolof bu gën a simple maanaam day soxla beneen noy yi mhm. sénégalais yi foofu lañu ñu toll dañu xoox ci daw njël xoox ci njàng mu sooxe xoox ci feebar mënoo faju parce que amuloo kàttan xoox ci mata xëy di taxawaalu xoox ci ñàkk karange buy faat. non cest ñaari baat yi muy jéngu ak fippu dafay mel ni ku ne ci nooteel. wala fippu wala jéngu. boo xoolee xoox boobu. waaw boo ci buggee génn. da ngay jéngu jéngu nag ku koy def mooy jàmbaar. koo xam ne da jàng. ba mënal sa bopp. ba ba xam ni que jéngu jàmbaar a koy def man pour man. xam nga jéngu jéngu nga baal ma mais jàpp ma ni jàmbaar a koy def. Euh, jéngu nga la koy def euh, loolu nag loolu euh, wolof bu motul la. gis nga mag ñi bu ñu daan xeex dañuy jël caaya seen hmm. tubéy dañ ciy dugal suuf pour bañ a daw même dans les conquêtes islamiques. bu ñu daan dem ci yenn zone de combat yi. dañuy dañuy wax lu la ñuy wax. brûler les vaisseaux. est-ce que juumuloo ci baatu jéngu. Eh, jéngu ragal koy def jéngu ma ne la eh, ragal du jéngu. ragal day daw. jéngu ku koy def. Mhm. day fekk nga pare doon jàmbaar. loolu mooy tax nga mën a am jaloore. te jéngu boo koy def doo ci bañ jéng doo ci bañ jaat loolu mooy baatu jéngu jege na lool ak baatu fippu boo koy traduire ci français da nga naan c'est un sursaut salvateur. da ngay gis lu doxul nga taxaw gis benn mbalit bu taxaw fii sonal leen nga ne ah nañ ko jéngu faj ko loolu moo indi baatu jéngu amul benn diis diis bu ci am. te amul beneen baat bu gënoon lu dul baat yooyu. nga xam baat bi rek baat bi rek moo méngoo. jéngu coono baat bii moo méngoo ak coono bi Sénégal yi di dund. Mhm. boo ko gisee rek nga xam ne Sénégal li fi dajale ci alal. Mhm. bi ñu amee indépendance ak léegi. ak potentialité yi mu am yëpp ñu toll fii ñu toll. am ñoo xam ne bu ñu añee du ñu reer am ñoo xam ne dañuy jàng ba am seen diplôme du ñu liggéey am ñoo xam ne fii mu toll nii ñu ngi xalaat seen fourniture école am ñoo xam ne dañuy fanaan duñu am dépense ah. mais monsieur Camara réew bu tolloo foofu. non non mais monsieur Camara ndax jàpp nga ni euh, ndax jàpp nga ni loolu nga wax dafa àndul ak doxalinu réew réew dafa ànd ak ñi am ñàkk foo dem ci àddina am na fa. ndax lii nga wax nii rek argument la bu doy bu jar jéngu bu jar fippu waaw xam nga lu tax mu nekk argument bu doy waaw réew mun na nekk ci tolof tolof mhm. ab jamono mhm. mais réew bu dajalee alal yëpp ba pare am nit ñu xarañ ni ko mu yor loxo yi ko yor jëmale ko ci yoon woo xam ne yi fi mu jëm mhm. naatulul ngir ñëpp ñëpp a war a am gis-gisu fexe ba réew mi naat naatal ñëpp mu bañ a am ñaari Sénégal kii di daw dépense kii di jant te lool la gis fii Sénégal ni ñu organiser alal ji. Ah. ak ni ñu organiser économie bi. d'accord moo tax ba tey jii Sénégal ñëpp a jaaxle kenn gëmatul ëllëg ndax coono boobu koo woo tey minuit moins cinq ne ko dama lay may cinq mille francs wala nga xaar ba suba ma jox la dix mille francs daf la naan indil parce que kenn gëmatul ëllëg on n'a plus un avenir rassurant xel yi dalatu. d'accord mais est-ce que loolu gan la fi ci réew mi. dugaan euh, mais xam nga lu tax mu am importance léegi Sénégal dafa toll ci situation bu mosul toll mooy am richesse yoo xam ne bu ñu fi feeñ ak possibilité bu ñu am aujourd'hui pour dugg ci yoonu développement boo xam ne kenn dootu ci génn mhm. foofu la Sénégal toll chance boobu ñu am yàlla may ñu ko fii nag la Sénégal yëpp war a jógee taxaw pour dugg ci politique pour fexe transformer réew mi fexe ñu bañ a saax-saaxee alal te da ngay gis ne nekkuñu ci yoon bi ah oui nag dañu suri yoon bi dañu teggeeku ci raay bi réew mu mu tegu ci yoon boobu dafa am noo koy xàmmee dafa am ay mandarga mandarga bu njëkk bi mooy état bi du nasax xam nga état bu nasax mooy état boo xam ne amul doole sax négocier alalam état boo xam ne bii amul doole fexe ba mën a intervenir ba ñëpp jot ci alal ji mhm. état boo xam ne day ameel bor ay nit ameel ay bor ay entreprise ba ameel bor ñoo xam ne da ngeen war a indemniser ku mel ni Cheikh Diop ba muy làkk boppam ndax dañ ko war a fay fay ñu état bu nasax entreprise yoo xam ne liggéey yi ñu war a am ba ñëpp jot ci seen bopp jotuñu ko li ëpp ci liggéey dañ koy jox bitim réew kooku boo ko gisee ci réew rek commencé l ci boo gisee ci réew liggéeykat liggéey ba retraité di jug di wuti dépense rek xamal ne am na lu xew donc liggéeykat fii Sénégal dañu nekk ci coono boo xam ne seen ñàq sax fay xam nga ni nekkuñu ci réew mu développé eh, justement loolu xam nga ni nekkuñu ci réew dañ koy développé réew du développé mais xam nga ni nekkuñu ci réew mu développé aussi parce que li ñuy wax nii ci argument dafa mel ni ci réew mu développé ci nga mën a liggéey ba retraité sa question bi dafa am important da nga ma ndax ñu ngi ci yoon bi ma lay won mandarga ku nekkul ci yoon bi waaw développé wuñu développé guñu nee naa la am nañu conditions yi pour développer dañu amul mandarga ku nekk ci nekk ci yoon ñeenteel bi nga gis jigéen ñi li ñuy daj nga xam ne dañu war a mënal seen bopp jigéen ñi mënaluñu seen bopp Sénégal fu ne ñu ngi fay di dugg ci leket yi di cotiser di yeewu suba di yenu ay jën duñ ci am dara man gis naa Touba ñoo xam ne dañuy dañuy xolli gerte. loolu mooy seen jàmbaar. loolu li nga wax nii du du mais dañ leen joxul njàmbaar la njàmbaar la koo xam ne dañ leen joxul nag financement bi tax ñu mun a am mënal seen bopp xale yi moom waxi noppi xale yi toll nañu foo xam ne bii xarañ bi ñu war a xarañ xarañu ko parce que contenu enseignement bi ñu leen jox ak valeur yi ñu leen di inculquer du tax ñu mën a am ab xëy. Hmm. donc mandarga yooyu moo tax ñu xam ne Sénégal fii mu toll. bu ñu waxantee dëgg rek. même génn ci politique. Hmm. ñëpp a war a jax. d' accord léegi euh, monsieur Camara Boubacar euh, nekkoon nga fii directeur général bu douane. boo demee tey bay laaj réew mi est-ce que du jox nit ñi dëgg ñu naan douanier yi dañuy dañuy jalgati alalu réew mii dañ koy dañ koy dañ nga baal mais dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy waaw dañ koy sàcc mais nga baal ma ci baat bi euh, ci douanier yi ni nga xam ne noonu lañ leen di gàkkale est-ce que bu ñu demee ba yow nga nekkoon directeur général des douanes nekk inspecteur des douanes tey nga daan da ngay laaj réew mi te ku ne xam ne ni loolu laaj na réew laaj na alal que du jox dëgg ñi ja ñi ñiy jox xar bi douanier yi ci ñàkk ñàkk maandu ci alalu réew mi. Euh, xam nga man sama màndarga principal mooy gubi quartier man gubi karce la soldat ma sol tenue gubi quartier summi ko sol tenue marin summi ko sol tenue duwaan summi ko sol tenue inspecteur d'état summi ko sol tenue. Euh, secrétaire général ministère summi ko sol tenue avocat summi ko sol chef d'entreprise tol suñu président ci privé bi kon yow kon fi mu ne des dese woo benn ndombo tànk nit buy sangu du summi li baax ci moom du summi jikkoom du summi nu mu mel mhm. kon nit fi muy jaar dafa amul benn lien ak affaire u laajte réew affaire u laajte réew dafay am fu muy toll déglu rek Euh, douane nag man. waaw dama leen respecté. Mhm. parce que dama ci màgg. Mhm. bi ma ci dugg ñaar fukki at ak ñeent laa def fa 17 ans diriger ko pendant 4 ans. Mhm. bu doon ci résultat douane ak liggéey bu set rek la ñuy def élection man damay jàll premier tour te respecté douanier yi gis li ñu daj gis ay douanier yu dee ci xeexal seen économie di xeex ak ay fraudeur seeni njaboot ba léegi nekk ay. orphelin ak ay veuve man respect boobu laa am ci douane loolu laa xam man ci douane et loolu image boobu laa. gisoo gisoo douanier ak euh, alal du ne gaañ. image gisoo douanier ak alal du. ne bu am alal du ne gaañ rek fi mu ko jëlee jaaduwul. Ah. mënul laa bëgg a dégg man mii di wax ak yow. waaw yi ëpp rémunération yi ñu gën a fay ci fonction publique bi occupé naa ko. képp ku la ne mën na liggéey fonction publique ba dajale fa alal bu war a tax. Ah, maanaam ñu ne milliardaire euh, foofu laa jëm maa ngi ñëw ci affaire rajo bu yàkkamti ok loolu moom logique mhm. laaj réew nag du affaire alal laaj réew ab gént la man dama ànd ak ab gént goo xam ne. géntu ne Sénégal dafa soxla. naka je kay gént la mën a doon. gént la loolu gént la mën a doon. gént la mën a doon. waaw gént la mën a doon gis nga gént moo yore réew gént boo xam ne dama yaakaar ne man Sénégal toll na foo xam ne dañu war a fexe bi ñëpp gëm ëllëg. Mhm. loolu mooy sama gént. gént bi nag day ànd gis-gis. gis-gis bi mooy mën nañu naatal Sénégal ba ñëpp jot ci man dama xam li war ci réew mi ndax fi ma jaar xam li ma war ci réew mi ma jóg di def li ma war ci réew loolu moo ma yëkkati. Mhm. alal ji koy liggéey produit bi nga nekk nit ki nga doon fi nga jaar ak li nga def ak ñi la xam wóolu la xam sa jikko xam sa njub ñooñu ñooy jënd sa produit. loolu moom moo lay financé du alal booy dajalee ñoo ñu ci ban échelle yëpp ban échelle ma ne cest ci ban mën na bu la mën a mën a mën a jox suffrage ma ne maa la wax loolu ñi fi gagné élection ni xam Boubacar Camara xam ko dama ne ndax ñooñu mën nañ la jox yóbbu ci échelle bu la mën a suffrage ma ne na ci la ñu jëm ci la ñu jëm bu amul werante gis nga politique euh, conception bi ci nit ñi daan am dinañ ko bàyyi par force xam nga lu tax ñu koy bàyyi jamono moo dox bu njëkk ba ñun techniciens yi nga xam ne dañu xam état yi liggéey wala ñu nekk ci privé dañ naan toog fële rek ne duñu dugg ci politique bi léegi ñun xam nañu que loolu bu ñu ko defee duñu def suñu responsabilité. Mhm. loolu moo tax affaire ku yaakaar ne politique da ngay ñëw dajale xaalis pour laa ci réew xamuloo li xew lii indi xaalis bi mooy produit bi. nit ñi ci def seen i effort ku nekk génn sa gafaka ku nekk takk sa ndigg jël sa temps def ci ñoo wax nit ñi expliquer leen yow mi ku lay voteloo jël sa oto def ci gasoil essence ma ne jël sa oto def ci gasoil dugg ci dëkk bi da liggéey utali maatam ah kon da foog ne kon da foog ne nit ñi dañuy toog rek liggéeyuñ mais ñun moo suñu liggéey moo suñu lekk dërëm boo xam ne bii ñoxuñu ko dama lay nettali dara gis nga bi ma nekkee xale